Ndoye Pirate waaw maa ñëw fii suma feeti maam mhm. ñuy sargal sama maam mhm. ma taxaw fi mhm. barke maam Coumba Ndoye loo bëgg a laaj laaj waaw léegi nag dañ lay laaj dañu gis sañse bi jekk lool macha nga teew ci bis boo xam bis bu am solo la te ngay kilifa ci ndakaaru yàlla defal la fi nga nekk fi kilifa pire léegi nag loolu lañ bëggoon a xam lan moo waral teewaay bi ak tey nan nga jàngatee bis bi ak ni mu demee nii li waral teewaay bi mooy Kabeer mhm. Limaamu Laay mhm. moom la ñu yàlla jox mhm. mu représenté ko fii si Kabeer dama wax gars yi léegi man leen Touba Serigne Touba El Hadj Malick mhm. moo nekk fii si mhm. mboon mhm. yàlla jox gaay ay paar mais na ñun Cap-Verdien yi ñun ñii dëkk Ndakaar yàlla sédd nañu kii bu ñu sédd daf ñu siggil siggil ñu paasewul nekk suñu jàmm mu ñaan jàmm jàmm nebi yàlla may ko ko loolu moo waral ñun ñëpp kenn ku nekk yëg sa bopp ne ab lébu nga bàyyi laay ab lébu la son maama ko jur kumandooy ngool fokk mu ñëw bàyyi lan mooy secret ba nga xam ne ñaar fukki at ak juróom benn mu nekk ko ci dëkk bi génnul ba pare fu woote bi war àgg rek àgg fa loolu lan mooy secret waaw secret xam nga moom moo ko xam mhm. waaye ñun li ñu mooy bi mu génnee daal wax na ne mboo mu weex benn couleur daxu ngoon ñi nga xamante ne ñoo fi nekk lii si des ñun xale yi Sénégal ñun ñoo dafa xekk que bi lépp lu nu am ci Sénégal ñu tudde am koom su ko defee kenn ku si nekk ci yéen parce liggéey am na solo yëkkati martabay mooy seen affaire yéen ñu ngi leen si gërëm bu baax. Mhm. mais bàyyi laay. Mhm. vraiment. Mhm. sagu lébu yi la. ndeysaan jërëjëf. comme sagu lébu yi nu sagoo ko rek. nu sagoo ko muy sagu Sénégal yëpp. ak saa. saa <laughs> loolooy wax. loolooy wax Sénégal daal. vive le Sénégal. ñoo war a yàlla. waaw looy tàggoo gars yi. li may tàggoo gars yi mooy. ñu bañ a ŋaññante. a xuloo bañ a xeex. parce que lii nga xamante ne moom la fi mag ñi bàyyi woon mooy bu leen xuloo bu leen xeex bu leen boddokonte kii jóge Casamance bu duggee Dakar fii la dëkk kii dëkk Diourbel bu duggee Dakar fii la dëkk kenn ku nekk na nga jàpp ay mbokk lañ bu ñu ay mbokk lañ ay mbokk waruñoo waruñoo ngiroo waruñoo ŋaayoo ba tax na yàlla daal mi nga xamante ne moo ñu sàkk yal na yàlla may ñu ñuy dundalu ëpp cent vingt deux ans yàlla mii dara teewul yal nañu yàlla may ñu nekk si jàmm ñun ñëpp incha allah Sénégal jàmm am fi waaye xale yi aussi ñuy mhm. ñaan si barke Baye Laay mhm. ak suñu mbokk taalibe yenn yi mhm. suñu mbokk sëriñ yi pour wan leen ne yàlla na yàlla defar bu programme xale yi Sénégal ba ñu màgg si jàmm kenn ku nekk mënal sa bopp parce que bu bu ko nekk mënalee boppam rek uh-huh. coow du am te comme ñu ngi dégg ne am nañ pétrole uh-huh. yàlla na gars yi exploité pétrole bi si jàmm ak salaam yàlla na leen yàlla dool si jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ñu ngeen leen a gërëm di leen ñaanal ngeen yokku barki salaatul baax jërëjëf jërëjëf